nga dem ndar depuis 2003 bi ñu ubbee brèche bi. ñu ngi nekk ci entre quatre cent cinquante jàpp cinq cent bakkanu doomu aadama ay ndaw yoo xamee ne ay waxambaane yoo xam ne ñu ngi ci fukki at ak juróom benn jàpp fanweeri at ak juróom yoo xam ne seen bakkan des na ci. mais Macron dégg nga lim ci wax aussi. ak le président de la république. xam nga ak engagement yi nga xam ni jël nañ ko ci. mais man xam nga yoo xam nga ni xam naa état xam naa durée projet yi ak engagement internationaux yi. boo fàttee sur le climat depuis plus de trente cinq ñu ngi wax ni dañoo bëgg indi cent milliards de dollars chaque année ba léegi dara génn génnagu ci te bañ ko fi waxee léegi ñaata at ci toj mais à côté de ça yow nañ nga mën a jël huit cent milliards dugal ko foofu te lii ma lay wax nii defar bël bi stabiliser ko defar booru géej gi génne benn zone tampon ak tëli jël ay kër yi nga xam ne impacté na la nga dem yóbbu nit ñi tabaxal leen ay kër ñu dëkk fa loolee lépp matul cent cinquante milliards. ci budget boo xamee ni 4000 milliards la amul at boo xamee ni depuis ba législature bi tàmbal amul at boo xamee ni sama ràngen ak sama coow ak sama wax weesuwul indi leen li lay war a suuli bu doon a France wala muy beneen réew ci àddina ñaari bakkanu doomu aadama pap fu ñu dee. Euh, mais Cheikh Bamba nekk nga fi ci gouvernement bi nekk nga maire ci Ndar mais lan nga ci def ci li ngay wax ni xam nga ba ma nekkee maire Ndar. nekk nga ci nekk nga gouvernement nekk nga maire ci Ndar lan nga fa def. moom laa lay indil nii léegi. di nga comprendre que ni man mi nga xam ne simple maire laa maa mënoon loolu bu ci état jàppoon kon jeex na bu yàgg gis nga dama nekk maire 2009 fukki kër ak benn yàqu ña nga xam ne ñëpp seen kër yàqu nañu ma wuti terrain jox leen ci maire yi. yamu ci loolu ma convoqué forum international sur le changement climatique. Mm-hmm. yàlla defal ma ma am partenaire ONU Habitat ak am ak réewu Japon ñu jàppale ma ñu tabax 68 kër 68 kër. pour changement climatique. loolu yëpp def nga ko fa ci bilan loolu yëpp def naa ko ci ndar googu. terewul ñu jëlee la fa. non mais xam nga problème bi. <laughs> xam nga problème bi Cheikh Bamba gis fa. non mais xam nga gis nga man da dem ndar gis que kër yaa nga fa nit ñaa nga fa xam nga pour dire simplement que ni boo gisee man gis nga yaa ngi wax évolution ci taxawaay sama évolution sama taxawaay mooy que ni man intérêt réew mi. Mhm. ak rationalité wu dépense yi ñuy def. ndax bu ma leen ne am nga 4000 milliards ñeeg fii ñaari dërëm ñaari dërëm ñetti dërëm 1 milliard 1 milliard ba génne 150 milliards du doon problème si ñun am nga ay eurobond bu la neexee leb benn jour ñu indi la 150 milliards. donc problème de volonté la pour yow problème de respect la. pour ñoo pour yow ñu état bi joxuñu. respect Saint-Louis oh, joxuñu respect doomu aadama yi. ok particulièrement ñu nekk foofu parce que damaa jàpp ne fu. imaginer nga lal quatre cent cinquante néew ci benn place quatre cent cinquante citoyens yoo xamee ne àq ak yelleef yi ngay revendiquer ci réew mi moom la ñu am ci réew mi ñu am pendant tout le temps gis nga boo tàmbalee 2012 ba fi tey jii nga def 3500 milliards multiplier ko génn si kat ak année bii bees plus de 22000 milliards consommé nañ ko ci Sénégal mais yii c'est des problèmes de société c'est des problèmes de justice et de respect affaire bi booy seet néeg la ak xol bu dëgër parce que boo amee benn farata bu ne këtt ni jonn nga teg ko fa dem lu mën a jël huit cent milliards dugal ko ci terre c'est que da nga yabaate. ñu ne déedéet waay nga fekk ñoo xamee ne am nañu tëli ci biir Dakar muy VDN bi nga dugal leen cent milliards pour yaatale leen ka te ay nit di dee fale da nga yabaate te yooyu mooy. déficit yi nga xam ne moom la ñu war a régler suñu réew suñu bëggee nit ñi yëg nii tamit ci la ñu bokk. d'accord mais honorable je pense que discours bi du discours campagne. non absolument pas ci élection locale yi pour pour pour briguer waat encore la la la mairie de. wallaahi yàlla mi ma tiim xam na ni ça n'a rien à voir. mais sa intention la yaa ngi koy xalaat non dinaa ñëw ci loolu. waaw mais baal ma ñu egg si ci. waaw mais xam na man mairie ba. dafa intéressé ba tey ah oui. parce que man doomu dëkk balaa. d'accord xam nga mais mais dama bëgg ñëw ci àll kala ji parce que bëgguma ñu ñu ñu buñ ko mu woon bu façade bii nëbb affaire yi mais. dàqal bamba mais man aussi bëgguma façade bi nëbb ah, affaire bi justement donc ku nekk aussi vraiment. <laughs> c'est vrai c'est vrai ku <laughs> ah, nekk si maa ngi lay sant bu baax ci opportunité bi nga ma may mooy nañu jël bamba jéey génne ñu jël campagne municipale dindi ñu teg la réalité de la société saint-louisienne nga ni langue de barbarie lu mat cent mille personnes ñu nga fay yeewoo. ñoom ñëpp seeni écoles yi nekk ci gendar doxatul depuis dernière mande bi donc seeni ay doom doomu jaambur yaa ngi dem seen doom yi taxaw benn place. nga ni boo géej gi depuis boobee ba léegi prochaine mbënd bi keroog bu mu njëkkee am dañu jël trois milliards six jox Eiffage. Mhm. mu ñëw indi leen ay gabion maanaam ay grillage dugal ci ay xeer lal man maa njëkk wax ni dans un milieu marin. boo xamee ni force houle bi kenn calculer wu ko jël trois mille six trois milliards six cent sànni foofu xeetu fonto nit ñi la c'est de la politique politicienne te amul njariñ. la preuve trois trois milliards six yooyu ñàkk nañ ko te fajul suñu soxla. yooyu laa ni. Ah, mais effort la aussi. ah la aussi. non du effort parce que un état <laughs> effort du effort caaxaan la parce que gis nga un état. non yaa ko qualifié de caaxaan la. waaw non sama yaa man man <laughs> comme sama wax la. sañ naa ko wax naa ko. mais effort la mais mais kon effort bu amul benn njëriñ ngoog. Mhm. li ci am solo ba am solo daal mooy un état du yow du man duy jóg ci benn mbir. day am ay études yu wër yu wóor. gis nga man en tant que maire jamono yi ñu ci nekkee mu affaire bi ñooñu ma dama wuti bureau d'étude mm-hmm. Hollande ONU Habitat jàppale ma ñu ñëw defal ñu étude Saint-Louis étude boo xamee ne li ko taxoon a jóg mooy xool vulnérabilité maanaam woyofu dëkkuwaay bi ak insécurité bi mu àndal par rapport ak phénomène yu bees yi nga xam ne mooy mbënd mi jógee ci géej gi ak bi jógee ci d'accord d'accord léegi ñu ñëw ci ci ci ambition bi encore pour retourner ci ville bi euh, est-ce que dina yomb ci yow Mary Teuw Niane dégg nañ ko mu wax candidature am ak yéeneem pour pour la ville de Saint-Louis euh, yaakaar nga dina dina nekk lu. lu yomb bu fekkee lu am la sa ambition boobu. man bu yomboon sax du ma ko du ma intéressé. ok ndax dëkk boobu boo seetee 18 1892 communalisation moom la ñuy def journée africaine de la décentralisation. Mhm. kon ndar dafa am histoire ci wàllu décentralisation ndax mairie njëkk fa la ñu nekkee. Mhm. mu nekk boo xamee ni dafay symboliser Sénégal ci histoire culture religieuse am ak culture intellectuelle am ci mouvement mhm. d'émancipation am ak ni mu formé élite yu njëkk yi ci réew mi mhm. donc dëkk boobu jàpp naa ni dara mënul yomb dara mënu fa yomb te bu doon suñu sago ñu gën a gën a réew ma d'accord jóg taxaw bokk ci ndax loolu rek moo ñu mën a avancé loo danga ko xalaat ànd ko ak euh, ànd taxawu Sénégal ak xalifa Sall wala noo ko xalaatee ah xalifa pas seulement xalifa man man précisément xalifa laa la laaj. Ah, mais absolument man waxoo ma peu man maa la laaj. waaw man maa la tontu ni la ah waaw waaw. ak xalifa ndax ànd gënoon def naa la ñu passé moo gënoon a jafe li nekk suñu kanam. ci bi mu bi mu la seetee waxtaane ngeen ko. non xam nga gis nga euh, sama diggante xalifa aussi il faut que ma doole si <coughs> yokk xalaat nit ñi. Mhm. da acteur politique mais acteur politique. comme ni nga xamee ni cause nationale yi ni ma intéressé ma gis ni ku ñu tooñ la. Mhm. ma engagé wu spontanément. parce que bëgguma man tamit situation boobu daal ma ma def ci sama kàttan ci biir nag yàlla def ci ay affinité yoo xamee ni dëgg la démb amoon na ñu àndoon ci biir xeexu 2012 boobu effectivement bi ñu ñëwee. ndax waxtaan ngeen mànkoo taxawu Sénégal ci local yi. ah waaw ñu ngi ciy waxtaan kañ. yéen ngi ciy ah, waxtaan ñu ngi ciy waxtaan dëddu foofu rek dinañ ko yaatal bu baax a baax. Mhm. ndax xam nga affaire bi moom je pense que ni yow mi yaa ma gën a xam na muy demee. xam nga ni moos. loolu euh, luy ëllëg lu nekk. Ah. luy ëllëg lu nekk te di ñëw. da nga koy waaj ak ñi nga xamee ne moom nga jàpp ni booy jóg booy bu ñu jógee nga jóg boo jógee ñu jóg. kon xalifa tekk bi wute na ak ni ñu ko xalaatee quand même. non am lu muy lu muy lu muy waaj. man jàpp naa ni bu nekk war nga nangul dara jëmm jooju di xalifa Sall. Mhm. moo di que ni mag mu dal la. Mhm. Euh, yëfam amul lenn lu mu ciy précipité. te jàpp naa ni aussi euh, réew mi ñox na ko ñor goo xamee ni. Mhm. Euh, accident ak positionnement boo xamee ni teguwul ci xel. da koy moytu bu baax a baax. et aussi surtout que ni ñu xam ni euh, système bi ñuy xeex. Mhm. ak li ñu fiy jooy dara soppeeku aussi. Mhm. ndax moom ak ay morom yu bare ay victimes lañu ci mode d'organisation politique bi nga xamee ne amee nañ ko. ci réew mi et par conséquent euh, lii ko dal nii ak fi mu si toll ku yaakaar ni rendre nañ ko justice da ngay fo da ngay caaxaan tey jii la gën a vulnérable. tey jii la ay droit am gën a manqué parce que fañ ko jaarale ba yegg si fa ñu dee waxal dëgg rek te bàyyi caaxaanu dialogue ak yooyu dañuy fexe les vraies questions yi nga xam ne moo nekk si réew mi ñu indi ci ay solution mooy ku ñu tooñ ku nekk ay bël déeg yooyu taxul dañuy dem fa tooñ ba ne ñu effacé ko nga mën a retrouver l'entièreté de tes responsabilités dégguma li nga wax